asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di ziara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag nu ngi mardi maanaam talaata 5 octobre 2021 la may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu ëndil ñu dikkaat ak yéen si plateau asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 5 octobre 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu lamb leen koy dooreeti yëglikaay ba tey nag xëtam mu njëkk lëm ca xëy sës gën ko caa fësal daal bokk na ci combat bi nga xam ne moo war dox ci diggante ñaar ñi nga xam ne nii moom moo di Modou Lo le roi des arènes ak Ama ma nga xam ne roi ba la bëgg a yóotu jël ko ci Modou yëglikaay ba nag nee na combat 25 décembre 2021 ba daal fi mu nekk nii moom guerre ba commencé na de ci ay kaddu guerre nag ña ko commencé du ñaari mbër ya waaye ñaar ñi leen seq wala boog staff yi leen daal ñoo ko commencé que njëkk a wax nag moom mooy Ndiouga ba nga xam ne Rock Énergie la bok nekk ca encadrement technique ku Modou Lo la mu xamal ki nga xam ne daal moom moo di Ama balde ne na ko soo bëggee dégg-dégg yaag ñi nga àndal Modou Lo moom maanaam jàkkaarloo nag ñoo xam ne ñi ñoo la gën a dangereux fuuf ëpp la safara gën laa tàng gën laa wex xat te bañ ca jógee mu dafa régler seen i li problème li jënti leen kon new Ama moom jàppal ne nekkoo koo xam ne ni ku tiital nga wala ku nuy nag wax ja la olof naan tontu du forox moom la ko du Bakhoum def Abdou Bakhoum ne na ko da ngay wax rek yow daal njuga ja waxal lu la neex waaye da ngay dem nga laaj Malick Niang bu yoof kan mooy Ama Baldé ndax daan Ama Baldé yomb na wala déet mu ne ko boo ko laajee ba pare nga doog a ñëw te buñ ca yeggee da nga xam ne wax jooj nga waxal Modou loo Modou Lo du ko jëfe bu bés baa ndax Ama dina ko wan loo xam ne ba bëccëg dana ko ko wan par force mu mel ni ki daal waxante ba fi mu nekk nii nag commencé na jëm le vingt cinq décembre am na foo xam ne nii moom daam ku am foo koo xam ne bëgg-bëgg la fa am muy Eumeu Sène mu Tyson nga daal la mu gis ba combat ba ko moom moo di Tyson numéro deux wala boog Tyson deux pulem ba ak nga xam ne moo di Sa Thiès rakki Balla Gaye ëmma daal combat bii moom bëgg na mu taxaw yëglikaay ba di sunu lamb xëy tey wax nu ko ci xëtam mu njëkk leneen loo xam ne taxaw na ba ñu war a jongante le 10 octobre di dimanche ji nu jëm ci arène nationale muy waa rent décaré ak seen lamb ja am na ca combat boo xam ne nag dañ koo simpi tey jox ka nga xam ne nii moo di père nag sa mu jàngat ko wax komba ba ka mu na ka xëy nag di wax ak moom di ko wax ne na def ndànk te dal moo di grand bañik père nga tey bu baax a baax ci mbiri Eumeu Sène Junior ndax mbër la moo xam ne nii day ah yomb naa trompé nit kon nag tey daal loola war la seen diggante ca bés booba tamit am na koo xam ne da cay bëre muy le dis octobre muy Obali diggante mag Pape Yékini mel ni ki nag moom Obali daal maanaam fi mu nekk nii daal yeewu ak ndam daal mooy li koy xaar ci bés booba yëglikaay ba ñëw na ci lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci biir yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb ba tey lee seniors diggante ba ka nga xam ne moo di fils de Batlen Siki daal combat ba les seniors daal mu nga xëy di wax la nga xam ne nii daal moom moo di envie bëgg-bëggam daal la xëy di wax ca bés booba buñ ca yeggee war a jàkkaarloo leneen loo xam ne yëglikaay ba ñëw na ca muy làmbi simple ji nga xam ne jax si tëggoon na ko bari démb ci dimanche ji mel ni ki nag final bu mag ma moom maanaam Fara moom moo dominé Boy fay ci ay points moo ko gagné yëglekaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag Boy Faye moom nga xam ne dañ ko gañee ci ay points daal ñëw na démb ca émission ba ñuy wax naa Arena Hebdo fii ci Equivox TV daal leeral fa la ko lil defet ba ak itam la nga xam ne nii moo ca am ndax nag moom daa jàpp ne du ñëw ci lambu mukk ndax li ko topp di ko bàyyi xel ba pare muy ñëw di sarxe boppam nee na bu sersee bëre amu ko moom itam day toog di calcul parce que itam nag du asaaloo lambam loolu mooy waxi booy fay fi dapat leen sikki tamit nga xam ne ren li njëkka a teg ci lambi sampul moo ko jël fa nga xam ne nii moom moo doon ca tere gaal gi moom tamit bokk na ci émission Arena Hebdo ba moom tamit wax na fa la nga xam ne ni daal moo di envie ak bëgg-bëggam ci li simple bi ak itam gañe ba muy gañe waaye ñoom ñaar nag kañu sot sotoon lal ci koom du kenn ku dul mbay guy gi ñoom ñaar ñëpp daal moo xam booy fay la wala muy fit na fils de Batlenski daal ci ca Equivox TV daal na nañ mbay guy gi day wax rek di topp rajo yi di wax wala micro yi di wax li ko neex waaye moo la gën a xam ne bis bu duggee ci ñuy bëri simple su ko regee des na ko lijjante régler ko ba mu mel ne montar maanaam daal kon ñoom jàpp nañ ne mbay waxam jooju moo yey mu di ko wax ndax bu duggee ci li simple bi ñu wan ko biddiw ba cëg loolu nag du samay wax booy faye ko wax ak ak ki nga xam ne moo di fils de Batlenski jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay tey loolu lañ ñu xëy tey andil muy sunu làmb ak Equivox TV bu dee nag yëglikaay bi di sunu làmb la ginnaaw bu ma leen nuyoo ziar leen ñaanal leen jàmm xëtamu njëkk tey la ca xëy gën caa fes moo di Modou xarañ loolu roi des arènes Ama Baldé sëllu bu ndaw borom Pikine ak kan Luc Nicolaï ma tëgg seenu combat yëglikaay ba nag nee na guerre ba commencé na ci wàllum kàddu waxante ba defante baa nga mel ni tuleeg màlle maanaam daal tey loolu la ñu xëyee tey ñaari staff ya nag ñoo ko seq maanaam waa kër Modou waa kër Ama côté Modou ka wax moo di Ndiouga Dia nee na ki nga xam ne nii daal moom moo di Ama Balde Ndiouga Dia nee na ko day danga yow booy boo nga teey te xam ne Modou Lo jàmmarloo nag ñu la gën a danser kon yow jàppal ne jaaxaloonu loolu moo waxi Ndiouga Dia la Abdou Bakhoum tontu ko moom muy menacé wu Ama Balde ne ko Ndiouga da ngay wax leelal neex da ngay dem nga laaj Malick Niang kan mooy Ama Balde ndax Ama neex naa daan wala déet te bu keroogee di ngeen xam ni ñu muur doon jàmmaar lool du nu ama mu mel ni kon wax ja commencé na loolu nag moo lay wan ne combat boobu mooy combat bi ma jàpp ne mooy combat bi gën a dangereux ci saison bi combat Ama Baldé parce que tax ma ko mooy xam nga làmb bu amee rivalité bu metti bu tar enjeu bi bëri day day metti te combat bi dafa am rivalité enjeu bi dafa bëri ndax rivalité bu fa mu commencé mooy ca mbapat ma woon parcelle ba ama demee parcelle muudu daan ko fa booba ñu ngi mbapat nekk ay xale lu kekk kekkoo guñ bu baax ci làmba yaa ngi dégg àddina di dox ñuy bëri di bëri muudu jiitu ci arène bi di wane boppam ama ñëw moom itam di wane boppam ba muudu xëy nekk roi des arènes jële ko biir yaa ngi dégg ma lay wax léegi nag loolu bi mu amee ka daan di Eumeu Sène nekk roi des arènes nekk roi des arènes ko nekk roi des mooma tey nag di rakk ci Eumeu seen Eumeu Sène bokkoon ci ñi nga xam ne nekkoon nañ ci keppaaru fàllaay parce que jaar na fa ci bëre ama kon seen nekk seen rak tey mu war a bëri Modou Lo moo tax combat bi bëri enjeu coow li bëri ci yaa ngi dégg lam bi parce que pat moom moo gën a yokku coow li ñu ne déet ne waaye ama ak Modou ku ci ne dugg nga sa goxu moroom ndax Modou bi mu duggee Pikine daan na fa ëma seen deux fois loolu leer na nañ yaa ngi dégg wane na fa boppam waaye ama daa dugg parcelle daan fa bay pël daan fa ki nga xam ne moom moo di Papa Sow ah? mu mel ni kon ñoom ñaar fi mu nekk ni seen buutante moom daa méttee méttee méttee ba nga xam ne moo kombaa ba pour nga gis combat bu ko gën a dangereux dina métti ba pare ñaari mbër yi nekk ay mbër yoo xam ne côté popularité ci làmb buñ doon tey tànn cinq meilleurs lutteurs yi maanaam wala boog cinq mbër yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp popularité ji ci Sénégal Ama ak Modou dañuy bokk ci biir ndax ci Modou Lo lañ gisee loo xam ne nii benn combat ak Lac de Guiers naa ne koppati ba bu weex ba moo du jënd koppati ñëw indi ci signature wala ñu jox ko koppati jeex Sénégal rawatina Dakaaru supporter yëpp uti koppati yu blanc yaa ngi dégg loolu soppee moo koy waral bëri popularité yoo koy waral bal Baldé ci moom laa gisee mbër moo xam ne da maanaam da ngay bëri ji ay camion njëmbat comme noonu ñuy def ak màggal di yëg ci njëmbat yi jëm Tuubaa ci laa ko njëkk gisee ay njëmbat topp la jóge Pikine uti Demba Jóob mbooloo di ko topp moo xam ne da ngay sax yéemu ci sa borom moom Ama kon ça veut dire lig ni ko lay walay def def na mbir dañuy ñaan la 25 décembre yàlla nañ ci yegg ak jàmm wax ji nag fi mu nekk nii faaw muy am parce que dañuy naxante ci wàllu bopp fi mu nekk nii moo tax ku ne di génne ay kàddu di ko sànni sa morom yóbbante waaye olof na ne yóbbante galgal ubbul làmb waaye bis bu pënd ba wuree ba ñaari mbir yi jàkkaarloo ba du soufflé lépp fa lay leere yàlla nañ ko fekkee te tal ko bu nu continuer ba tey magi ñu Ama Baldé Eumeu Sène xëy na di valider benn combat boo xam ne bëgg na ko muy combat Sa Balla Gaye numéro 2 Tyson 2 di problème loolu la Eumeu seen bëgg gis ngeen ko mu ngi noonu waaw maa ngi noonu ci diggante ñaari xale yi mu mel ni moom combat boobu daal itteel na ko pour mu taxaw waaw xaw xaw newu ma nag actuellement du du du du taxaw waaye est-ce que dina yomb dina facile pour mu taxaw ndax Sa Thiès ku ne xam na ne dafa jóge ci ndam diggante ak Moussa Ndoye Tyson 2 jóge ci defe diggante ak Franc te waa kër Sa Thiès leen di wax Franc des fois ñu di ko bañ kon est-ce que dinañ nangoo jël Tyson 2 ah loolu affaire la terewul nag ñoom ñaari mbër yi ku ci ne sa palmarès buñ ko toppee ah sorante wuñu palmarès ah parce que loolu faaw ma dikkal leen ndax du man a ñàkk ndax yëglikaay bi ñëw na ci bu dee ki nga xam ne nii moom moo di Sa Thiès la mu ngi ci 16 combats la am moom Sa Thiès 16 combats fukki combats ak juróom-benn am na ci 2 défaites ak 14 victoires Tyson 2 boo xoolee moom tamit am na ay combats yu takkoo takkoo takku ah am na 16 victoires am na 3 défaites. moom mi nga xam ne ni moom moo di Tyson numéro 2 waaye loo ci mën a dégg daal Eumeu seen moom bëgg na combat bi am waaye nag ndax dina am loolooy wax ji ba tey bu nu continuer Père Max ku ne xam ne le 10 octobre rent DKR ñoom ñoo ñëw moo tax Père Max nag xëy tey di wax ci benn combat bu nga xam ne jàpp na ne ah kii di Calme Ndour sa digganteeg Eumeu Sène Junior Père Max dana la nga teey dana la teeyal de parce que nag Eumeu seen Junior gasoil la de te loolu la Père Max wax lu am la mbër yàgg na koo dëkku ngeen dem ba ca géew ba nga la nga yaakaaroon doo ko fa fekk parce que te lu combat di gën a yàgg mu gën a ne ci biir combat moom Eumeu Sène senior loolu yàlla may na ko ko kon loolu lu jar a bàyyi xel la waaye père Max Mbargane moom wax ak yow grand bañik euh, waaw ku yàgg ci njaw di njaw te da cee yàgg macha allah yàlla na ci gën a yàgg suñu papa yooyu ñu koy ziare ba tey bu ñu continuer même ci bés boobu ubbal da cay bëri ak papier ki ni muy dimanche loolu tamit du lu jar xel combat boobu tamit ah ubbal yi tamit daa mel ni war na ko fa yëglikaay bi ñëw na ci loolu ubbal yi bu Ibou Ndiaye ubbal yi bu Diofior waaw loolu ñëw na ci mu mel ni kon euh, tamit tournoi Ajax bi ku ne xam ne ne amoon na dimanche passé ki nga xam ne moo di Franc gagné Boy Faye par ay point loolu tamit gis ngeen yëglikaay bon na ñaari mbër yu noonu Boy fay moom nag bi jaral nañ ko fii ci seen yaa ci Equivox TV wax na fi la tax mu ñàkk parce que nee moom ah bëre moom du asaaloo bëreem te wut na buntu gisu ko wut ko gisu ko wut ko gisu ko mu taxaw moom tamit di xaar ba gis bun gisu ko nag combat comme lit moom ñaari cinq minutes la yaakaar naa ne après ak benn mi boo xam ne xuma une minute la xuma deux minutes mu jeex loolu tax combat ba Franc gagné ko par point waaye loolu tamit nekkul lu neex amateurs yi encore une fois amateurs yi bu ñu sañoon bu ñu dee bëre di bëre di bëre di bëre ba yegg si foofu jël day am comme ni ko xale yi defee poids léger bi ndax poids léger bi boo xoolee ñoom bu ñu leen ñoom ñooy gën a tuuti te pourtant ñoom dañuy bëree di bëre pour nga gis poids léger ñu gañente ci côté ay points lu jafe la yaa ngi dégg mais souvent da nga koy gis ci poids lourd te mu ngi bëgg a bëri nag kon nag tamit war ngeen di joxe bu baax a baax a baax a baax bon mais nag làmb tamit da ngay ñëw ba foo nga xam doo ko foyee doo ko kal da da nga koy teg ci yoon lool dañ leen koy nangul waaw mais di jaaraamal jax parce que tamit def na lu am solo ndax jax kere bi mu tëggee làmb ji seen see bàyyi ko nangul ko mbër yi ñëw ak seen licence daaw indiwaale seen ay visite médicale ah jax moom ca xaalisam moom moo jël leen ku ci nekk sa licence yaa ngi dégg te loolu lu am solo la muy acte bu ama am solo waaw ñaari mbër yooyu euh, mu mel ni kon loolu am na fi mu amoon weekend passé booy fay tamit démb ci Zidea ci safur la arena abdou bi wax na fi moo euh, fils de Batlen Sikki tamit di xale bu jar a xel ndax fi mu jaar ak li ko mu lay wan moom tamit daa moo fi dikkoon ci wàllum làmb ci journaux yi di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak encore une fois di ñaan Sénégal leen fi yàlla def jàmm di nuyu ñëpp ñi nga xam su ma soppee nekk ca police centrale waaw maa ngi koy ziar bu baax a baax di docteur foofu maa ngi koy di policier mu ngi profité di nuy policier yëpp rawatina sama goro di sama soxnaas rak di sama jëkkëru rak di moins muy Ablaye Ngom dëkk ak yaay maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu tamit la commandant de brigade Aliou Ndiaye commandant de gendarmerie di doomu ak yaay di papa ci man muy nuyu doomu ak yaay yëpp waaw moom moo du bopp ah professeur boobu comme ni ñu koy waxee Badou Kama professeur nekk fii ci de la fosse yooyu ñëpp di ay doomu ak yaay ah ñoom Elimane Ndour suñu mag ñooñu suñu papa yooyu ah ay suñu père Pape seen jaas ñoom ñëpp suñu père Cheikh Nice Ngagne du ñu fàtte kenn doomu ak yaay yëpp ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal jàmm ah di ci wax fu ci waay mën a nekk rek maa ngi lay yàlla fa nga nekk di ca yëngutu yàlla na la yàlla dimbali nga réussir fa ak suñu paf grand paf moom tamit yëngutu ci wàllu mburu mi nekk fële ca Touba di di liggéey ci sote bu mag maa ngi koy béggee Pape Fall di nuyu suma xarit ami d'enfance yi Mbay Ngom maa ngi koy béggee di taximan Abdou Aziz Ndiaye tamit di caaykat ñoo ñëpp ñu bokkandoo yarandoo ak yaay tey moo tax daal maa ngi nuyu waa ak yaay yëpp yëpp yëpp yëpp su fa duggee nag faw ma ñaanal suma papa yàlla guddal fanam wéral ay cëram mais tamit di nuyu sama ay soxna aussitôt di ñaanal suma yaay yàlla na ko yàlla xar aljana di nuyu Habib bi nga xam ne tey Habib Diouf moo newoon si film bi si montage bi Balde di ñaan jàmm Sénégal yal na ko yàlla def barke yonent bi sallallahu alayhi wa